Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko Sonko jolloon of ah kii di Dramé <laughs> kii di Dramé. waaw Dramé bu ñu ko rajo Ousmane Sonko daal di jàpp la ñuy jàpp xaaral rek. <laughs> 아까 다시 아오네 가르마 가르마 아 왜니 잡네 비리 나가면 dictateur dictateur dictateur waa jël leen pancarte yi gars yi jël leen pancarte yi jël leen pancarte yi dictateur dictateur waaw jox leen gars yi pancarte yi am leen jàpp leen am bismillah jàppal pancarte. comme kilifa yaa ngi wax léegi jàppal jàppal. jàppal. <laughs> bismillah madam wala bii moo la gën a am. waaw waaw du ñu saaga du ñu saaga mais violeur bi parce que dafay violer suñu constitution. mais mais day violer suñu constitution. donc loolu yow violeur la ok gars yi ñu def discussion léegi. ñu def discussion après ñu ñu wax nag combat bi Sénégal gars yi ñu koy combattre comme ñu wax la ñu koy combattre. parce que yéen a ngi koy combattre. Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Dictateur Macky Sall Dictateur Macky Sall Dictateur Macky Sall Dictateur violon la violon Macky Sall violon Macky Sall violon Macky Sall. violeur. Macky Sall. violeur. Macky Sall. violeur. Macky Sall. violeur. Macky Sall. violeur. Macky Sall. violeur. Macky Sall. violeur. Macky Sall. violeur. Macky Sall. violeur. Macky Sall. violeur. Libéré. Sonko. Libéré. Sonko. Libéré. Sonko. Libéré. Sonko. Libéré. Sonko. Macky Sall. violeur. Macky Sall. Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall Mansour Faye. sàcc la Mansour Faye. sàcc la Mansour Faye. sàcc la Mansour Faye. sàcc la Mansour Faye. sàcc la Mansour Faye. sàcc la Mansour Faye. sàcc la Macky Sall. sàcc la Macky Sall. sàcc la Aliou Sall. sàcc la Aliou Sall. sàcc la Aliou Sall. sàcc la Aliou Sall. sàcc la Aliou Sall. sàcc la libéré. Sonko. libéré. Sonko. libéré. Sonko. libéré. Sonko. Aca ah, grand bismillah on est là encore une fois oui donc on est là ici à New York devant le siège des Nations Unies pour euh, montrer euh, à quel point nous sommes révoltés contre ce qui se passe au Sénégal euh, jadis la vitrine de la démocratie en Afrique. Uh -huh. sommes en train de tomber sous euh, le règne de uh-huh. en une euh, république bananière. Uh-huh. Aucun droit n'est respecté, uh-huh. aucune liberté d'expression. Euh, les opposants politiques sont, emprisonnés, euh, avec impunité et, tout cela dans l'objectif d'établir ce qu'il appelle une soi-disant démocratie sans opposition. Il a lui-même il appelle ça pas réduire l'opposition à sa plus simple expression. On dans le cas Karim Wade et on l'a vu également dans le dossier Khalifa Sall. Mais quand même, euh, quant à Ousmane Sonko, euh, franchement, il n'avait rien d'autre à utiliser euh, que de monter un complot fabriqué de toutes pièces. Mais ça ne passera pas. Les Sénégalais ont compris et le peuple s'est réveillé. Merci beaucoup. Merci. waaw grand Alioune grand Alioune grand Alioune mooy suñu suñu jiitu FRDS xam nañu nag FRDS li ci def bareetul waaye nag ba léegi mooy suñu ñuy wax euh, pour la restauration de la démocratie. si cette démocratie est menacée ñëpp dañu war a jóg. parce que buñ ko bàyyee. Uh-huh. nii. sànq uh-huh. su paree ci kii ci keneen la jóg. Uh-huh. def na Khalifa. bu def Karim. bu defee Sonko. kon donc. Exactement. Si les libertés sont menacées, la résistance On se confère des omelettes sans casser des œufs. lii ñuy wax na xale yi toog na xale yi toog Macky Sall moo daan wax na xale yi jóg. en matière de marche et de démonstration, les dommages collatéraux mënuñ ci ñàkk. il faut qu'on essaie de les limiter. mais le problème c'est que c'est le peuple qui a tellement souffert qui va se lever. ñu ko gisee jamono yi muy fekk yëpp deuxième troisième mois c'est pour rester éternellement jusqu'à l'éternel. Ah ah. Parce que le problème de Macky Sall, ce qu'il sait, c'est que moom yàq na ci dëkk bi yàq na boo xam ne. Ah protégé woon arrière garde fépp ñëw da nga prosécutif familial yëpp. C'est ça notre problème. donc moom il va faire tout pour s'accrocher au pouvoir. mais ñun tamit Sénégal moom mooy ko moom. Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom. dëkk bi dañ ko jaarale Donc celui qui est avec moi, qui est safe. Celui qui est avec euh, le club, je te mets en place. On disait il y a... dictateur Nous disons non à la dictature. degré conscientisation bi ñu war a def si askan boo xoolee suñu maam yi nekk si àll yooyu ñooy gën di voté des fois mais duñ xam sa kan lañ war a voté parce que amuñ kenn ku leen yee donc moyens yi ñu a xeexee bëri na social media si la bokk mais ñun jeunes yi ñun nga xam ne instant yi ñu ngi fu nekk gis nañ technologie um toll keroog ren ren ren si si si Black Lives Matter bi ñun ñu ngi woon foofu di marché kañ lañ doon marché bi ay yeneen black ñu rey tey suñu askan moo ñu soxla am nañu am nañu jeune yi New York Sénégal yi génn day fees mais dañoo xaw a complexe dañoo desee gëm suñu bopp fii ku fi dee Sénégal lañ lay suuf muy muy Sonko di keneen ak keneen xeex bii di pour génération yi di ñëw la suñu maam yi suñu papa yi dañoo waa gars dajaloo leen de dajaloo leen de dama bëgg ñëpp taxaw nii comme ça ñu def benn hymne national rapidement ñu taxawee. ñu féete nii comme ça bii bii lañ ok gars yi leen ko wax leen ko wax na ñëpp def nii na ñëpp demee nii comme ça ñu mën a am Nations Unies est-ce que duñu jéngu sax jéggi. defe naa bu ñuy finaliser sax dañuy taare tali bi pour doon deux minutes rek ñu jël ñëpp après ñu abala dem suñu yoon. da ngeen di perte nii waaw da ngeen di tourner quoi. allez. hymne national ah. Eh. oh gars yi gars yi. wéy ma ñu yor micro bi. Ah. Ah. ok. bon gars yi regroupé leen nii quoi. gars eh, grand yor ngeen drapeau Sénégal bu mag bi ana Allez-y. Attends, attends, attends, attends. Non, non, xaaral xaaral leen xaaral leen. xaaral leen. non non xaaral xaaral dafay def dafay teg ci national bi ñëpp jiwandoo ko quoi. ah. xaaral xaaral xaaral waaw xaaral ñu dem. xaaral ñu dem. non dama doon toog. eh gars yi. dañuy woyandoo hymne national ok saa waay pare nga ah. pare nga waaw allez pare nga ah ko teg ko ko te dem. teg ko teg ko teg ko teg ko ci ginnaaw. ah d'accord. merci ok waaw ba pare soog a dem wala. ok nañ ko woy. one two three. Dansez tous vos sacré balafon, le lion rouge a rougi, au danger de la brousse. Le bon s'était lancé, dissipant les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur nos espoirs. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur épaule contre épaule, mais e plus qu'un frère, Sénégal est debout. Unissons la mer et les sources, unissons la serre la forêt. Salut Africa! nañu jéggi nañu jéggi gars yi dem leen dem leen dem leen daawee daawee daawee daawee daawee daawee daawee nañu jéggi nañu jéggi nañu jéggi nañu jéggi nañu jéggi gars yi jéggi leen jéggi leen jéggi leen allez allez allez everybody come on buntu Nations Unies ok let's go let's go let's go let's go na nga def jàmm rek waaw loo xam ci nga tànk yi baax comme moom ma nga France mais li bëgg waaw li mu a def préfet yi ñu ko koy defal loo xam ci loolu bëgguñu ñu bisi waat ah armée bi moo a jël dëkk bi moom waru ñu bisi waat armée moo a jël mais comme moom mi ngi France préfet yi la ban message lañ leen di jox dem lakk leen dem taal leen xam nga ma man bëgguma lu parce man Sénégal la ma fekk ba préfet yi di di di tëj euh, jumaa yi préfet ñoo doon joxe ordre ni kon moom li mu bëgg def lépp am nañu ko ko defal. loolu mooy dëgg. loolu la nuyu naa la. waaw c'est la dal ci yàlla bëgg nañ sa contact. ah ok naa la ko On est là pour le peuple sénégalais. On est là pour la jeunesse sénégalaise. On est là. Macky Sall. dictateur Aliou Sall. dictateur Aliou Sall. voleur Aliou Sall. voleur Aliou Sall. voleur Macky Sall. dictateur Macky Sall. dictateur Macky Sall. dictateur libéré. Sonko Marème libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko libéré Sonko Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur mooy xaaral ma wàll ma wàll. 10 mars 10 mars. 10 mars. benn résultat fii la ko mën a am comme Sénégal yow loolu fii la ko mën a am comme Sénégal. Mati Papa Dembélé Sino Papa Dembélé. waaw léegi soxla. doo jël fii. non fii. doo jël fii. non. Marquez Nobis Libéré Sonko Libéré Sonko Libéré Sonko Libéré Sonko Libéré Sonko Libéré Sonko No justice No peace No justice No peace No peace No peace No peace Sonko Sonko Libéré Sonko Macky Sall